porté plainte contre Moïse le secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur, et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Amadouba, et l'État du Sénégal. li euh, plainte négligence euh, mal assistance ci famille bi euh, indemnisation donc nous ñu waroon taxawé ñom nguur gi euh, taxawuñ ci non. donc euh, crime bi parce que bu mu man am personne jël na sama téléphone euh, jot Moïse Sarr secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur mu ne mën ko envoyer toutes les informations qu'il faut ak numéro suñu mbokk yi nga xamante ñom ñoom ñoo yore corps bi foofu. parce que ak crime bi bu mu amee ci station bi la amé fu mu daan liggéeyee police mo ñëw jël corps bi ñu ko hôpital c'est sur le sang ça a trouvé que dama voyage ma ñëw bima ma ñu wax mako mané ko non ñuy joy ñëpp di joy jaxlé ma jël sama téléphone woo ko expliqué ko ka bi ma jox ko numéro téléphone ñi nga xamante ñom ñoom ñoo corps bi fofu ci libi mu ma d'accord mu ne nous allons rentrer en contact avec eux le plus vite possible mané ko d'accord après trois jours après ñalé bu ñu jotee corps bi ma woo ko téléphone jëluma ma envoyé ko message ci WhatsApp bi répondre gul ma insisté insisté insisté pour woo ko xamal ko ne ne ñale am nañu corps bi léegi nañu intervenir le plus vite possible parce que famille bi mu ngi réclamer corps bi na ñibbi si ñu def enterrement fii au niveau de Guérero Bokal réagir ci ba jour enterrement bi mooy vendredi bi passé ñu def enterrement bi ma envoyé ko message ma ne ko eh, ni ngeen di def man ñawlu naa ko lool te je pense que ne da ngeen waroon am matuwaay yu mat sëkk jël ay matuwaay yu mat. pour ci ci ci affaire bi normalement euh, kii nii waruñu ko woon suul foofu ma ne ko te loolu man rafetuma ko te di ngeen ma ci dégg te état tamit di dina ma dégg ci ci affaire bi duma bàyyi mu sedd benn yoon voilà depuis lors amuñu benn benn benn autorité sénégalais bi jóg génn di wax ci affaire bi kenn si ñoom mooy le ministre des affaires étrangères muy le secrétaire général benn ambassadeur boo xamante ne ni waxu ci dara te pourtant Sénégal amul ambassade bi nekk Libye Algérie lañ ko am ak Tunisie mais ñooñu noonu kenn si ñoom même bu ñu mënul dem sax kenn jëlul téléphone am woo ndaw ñooñu noonu wax leen lan moo xew problème bi nan ak nan la amee ñu explique leen mais kenn ci ñoom deful jéego yooyu ba tey jii may wax ak yéen fii ba tey ji kenn si ñoom génnul di wax te loolu moo dul yoon te doomu Sénégal la ñu rey mais loolu moo tax que ne moo poussé pour ñu def euh, euh, plainte boobu euh, au nom de Moïse Sarr et le ministre des affaires étrangères Amadou Ba et l'État du Sénégal parce que dafa war a am indemnisation ci ci ci ci ci ci ci booy bi mais defuñu ko taxawuñ ci benn yoon ñu koy ñaawlu bu baax famille bi tamit di ko ñaawlu bu baax a baax. en premier le maire de Kolda Abdoulaye Bibi Baldé et son adjoint Bamol Baldé Mame Boye Diao. Euh, monsieur le ministre euh, de l'Agriculture et des Équipements Durables, Moussa Balde et Alpha Bokar Balde de la Sodagri, le préfet de Kolda, et même le maire commune de Griero Bokar, Boubacar Seydi. Personne d'entre eux n'a pas pu intervenir dans cette affaire. Et pourtant, nous sommes des Kolda. Nous mais quest ci